Anta. waaw euh, Pape li ma wax defe naa noonu la. waaw bu ma tuddee de. ah ok waaw d' accord maam Cheikh Anta Mbacké. askey yow day tubaarkàlle ki ñu la tuddee day laaw la cat. waaw. Euh, euh, ay ñaanam du la musul laal suuf. waaw mooy borom ndërëm ak waaw te nee nañu turandoo. waaw dafay jël juróom-ñaari jikko ki ñu ko fayee. <laughs> Ah, waaw dëgg jël nga ay jël nga ay jikkoom. waaw am na lu ma ciy jël de. yow yaa ngi dërëm ak ngërëm. waaw maa ngi ah, maa ngi ci de. waaw ah maa ngi góorgóorlu gisaguma sa loxo de. <laughs> waaw dina ñëw dina dikk. ngërëm gi nag ñeel na la ndax yaa ngi bay sa waar ca Thiès. <laughs> waaw jaajëf. waaye sa sa loxo ñëwagul de. non dina ñëw dina la boole ak El Hadj na sa ba ñëw nag gaaw. <laughs> incha allah yenn saa yi da ci baax sax nga woote ne ma alors jox ba sa tur dëgg. amul benn jaarale ko ci yónni ma cash. <laughs> wala ma jaarale ko ci ci Alsaan Samb Diop rek. voilà wala wala nga jaarale ko ci Alsaan voilà Alsaan moom xam naa ne bu jaaree ci ay loxoom <laughs> moom da cay teg ndax da koy xeeb. dëgg la voilà donc tey actualité bi euh, foofu ca Thiès defe naa ñëpp xam nañ ko. muy mhm. conseil des ministres décentralisé ana président yegg si na. waaw xam nga njiitu réew mi nag Macky Sall ngoon la fas yéene ñëw. waaye ah. tey ji ci suba gi. Mhm. Euh, conseil des ministres interministériel la moom mooy. ana mi mi ñëw na conseil des ministres. waaw Mimi Touré sànq motar yaa ngi yuuxu xam naa ne. mi ngi euh, ñëw ci kanam tuuti daañu fi nga xam ne mooy chambre de commerce bu Thiès. kon mi mi ngi ñëw. Euh, waaw mi ngi dina ñëw ak ministre yi yëpp daañu ñëw. d' accord ngir ngir waxtaanee investissement yi nga xamante ne fas yéene nañ ko def ci région bu Thiès. ok euh, waaye nag ci ngoon gi la njiitu réew mi war a ñëw muy Macky Sall moom nag ci RSTS benn société la boo xam ne. Mhm. Euh, danaa yëngu nag ci wàllu filature ak ay defar ay tissu xam nga usine boobu dafa tëjoon ci atam 2003. yàgg na waaw euh, léegi nag Macky Sall dafa jël juróom-ñaari milliards dugal ko ci. ngir usine bi mu tuddoon tuddoon encore. NSTS nouvelle société textile du Sénégal mu ngi nekkoon defe naa en face garage Dakar Thiès. waaw en face garage bi la nekk. ak grande filature de et tissage de de Thiès. waaw ñaari usine la ñu boole. léegi trois cent quatre vingt travailleurs ñoom ñoo ci nekkoon usine boobu mu tëjee ñoom ñëpp dañoo nekkoon chômage. d'accord tey jii nag euh, mbégte la tey jii ci waa Thiès yi ak doomu Thiès yi ak ñu fa doon liggéey ñëpp. Mhm. ne nañ daal dañuy réservé benn accueil chaleureux au mhm. euh, réew mi aussi waa Transva yaa ngi ko fiy ci jafe-jafe euh, lu wàllu saxaar saxaar xam nga nag euh, saxaar gi nag bi ñu ko jaayee waa ba léegi daal euh, dafa nërmeelu. Mhm. loolee nag travailleurs yi ñoom ñëpp aussi dañ génn daal ngir indi waxtaan ak Macky ci jafe-jafe yi nga xamante ne usine bi euh, Transvaal am na ko. ci kaw loolu aussi gis nañ Macky Sall aussi bu jógee foofu war na dem fi nga xamante ne moom mooy usine Seniran bi nga xamante ne foofee te fa ñuy defar ay oto foofee dina fa dem. waral nag euh, lancé ji li ñu wax euh, benn bëccëg boo xam ne dañ koy taamu jëmale ko nag ci wàllu artisanat. waaw ah. bu fekkee ngaay la fas yéene nekk. waaye nag liñ ci mën a jàpp mooy. Euh, gis nga démb bët trois heures du matin daanaka militants yi APR yi ñu ngi ci permanence yi di lijjanti problème mu xaalis. problème mu ah yeeg mobilisation yi. mu jur coow lu rëy fii ci diwaanu Thiès. ndax ci commune d'arrondissement bu Thiès Nord. foofee responsable yi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom la ñuy joxoon xaalis bi pour mobilisation am na yeneen responsable yoo xam ne daal daanaka dañ doon sànnintey xeer ci euh, maanaam xaalis bi ñëwagul Seyna bu njëgeen moo yor xaalis bi njagawaat bi ñoom ay militants yoo xam ne ay responsable la ñoom it ku ci nekk di wax daal ba trois heures du matin jubawuñ woon ci loolu doon xaar nag kon daal xam naa ne Thiès tey jii mm. dina yëngul lool te yeneen it euh, ñi nga mooy militant APR yi nekk fu mel ne ay Pekes ay Médina Dakar ay Tivaouane ay euh, Mboro ñoom ñëpp it ñu ngi mobiliser pour ñëw fi ci diwaanu Thiès xam naa ne daal Pape Cheikh. waaw li ci a yéemoo aussi gis nañ ne hôtel yi daanaka fees na del del réservation yi daanaka amatul pen ndaxte gan yëpp ñëw nañu. xam naa loolu dina jur koom bu rëy fi ci diwaanu Thiès Pape Cheikh. voilà donc loolu la ñu mën a jàpp ci conseil des ministres décentralisé foofu de Thiès je sais que euh, tey toute la journée da nga suivre information bi dañ ko détaillé toute la journée ci RFM. ci RFM ci www.gfm.sn suba ñu càmbar ko ci l'observateur bi n'est-ce Anta. waaw bien sûr yooyu yëpp euh, ci euh, ñaari parce que Macky Sall mi ngi fii ci Thiès ba samedi. ba samedi lépp lu ci màccee ci ay xibaar rek incha allah dinañ ko jotali askan d'accord kon ñu ngi lay gërëm. a ñu ngi lay sant bu baax moom Cheikh. à tout à yaa ñu teewal foofu ca euh, Thiès.